nii moom la ñu fekk tey géejawaay mu war a bëre combat bu rëy dox ci diggante ak général Malika <laughs> xale ba def na koppati def kol bu weex simi na kol bi ak koppati bi ma ngay dugg ndaysaan ma ngay dugg am na lu ñuy sotti ci suuf ñu ngi koy wisal <laughs> ndaysaan lamb am na lu ñuy sotti ci loxo bi sotti nañ ko ma ngay sëlmu masaana ci bopp bi laal na ci loxo yi laalaat na ci loxo yi ma ngay dugg ma ngay doxali ñu ngi koy wisal waaw waaw ginnaaw bi sant yàlla di sant sant sama mbaa bu baax di gërëm sama sëriñ sama sëriñ sëriñ Aliou suñu xaar suñu sëriñ di gërëm sama papa bu baax a baax ak sama yaay sama maay ku suñu ñu ko sama yaay lépp sama mag yi jigéen ñi ñu bàyyi di gërëm sama gars yi ma àndal nga xam ne souvent nga ñëw ñu ko xam ne dafay bëri ñëw fa am amuñu benn yoon xaar ma yàlla maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di gërëm waa am na 456 yëpp ma yeewoo waaw di bëggee ñëpp di bëggee ko sama dëkkandoo yi bu baax a gis nañu combat na yàqu ñëwoon na yaa ngi sant yàlla bu baax nga am adversaire bi nga xamante ne adversaire de taille muy ki mooy général Malika lan nga koy yóbbu ak loo koy wax suñu combat waaw général amul lépp ma yóbbu dafa ko mu nekk di wax parce que jàppal nañu ko dañu naan yàlla mooy fédéré ak tal ba suuf waaw gis na li ñu bëri ren di Javel mooy favori est-ce que mën nga lool. loolu gis nga sax waaw su ma su ma su ma jigéen la damay damay jéem loolu mosuma jéem waaw. waaw Fils de Balla maa ngi ak Général Malika nan nga ko seen a jëfandikoo. bu subaa dina ma jóg tëb su ma daan ma toog ci biir dina ma jóg tëb dina ma si jóguma tëb mais bu subaa si gàttal yàlla su ma toogee si biir dina ma jóg tëb bu baax fu ma romoon dina ma jóg tëb. moom dafa mel ni cible arbitre la wax moo la fi bàyyi parce que moom li muy compétir di bëree lu mat soixante quatre litres wala soixante cinq litres du Fils de Balla mii moo koy teree dem fi mu bëgg a dem. loolu moom la concerné GIE moom loolu moom la concerné compétition muy compétir moom la concerné. man écurie Balla Gaye laay kontaan écurie Mor Fadam écurie Waalo maa leen sant bu baax ku ni président Bade maa ngi koy gërëm bu baax sonn na ci combat waa écurie Mor Fadam waaw di bu ñu tamit suñu si ñoom la leen goro waa écurie Balla Gaye maa ngi leen di sant bu baax ñun ñëpp Moussa sama coach si boppam maa ngi koy bu baax di bëgg waaye bu Balla Gaye ñoom Balla Gaye de les Elton di déglu ñoom Sa Thiès ak Lac de Guiers mbir géej waaye yëpp ma seen si ñoom Mbaye Tine Njambaar Mar de gars yëpp bu ma limee la ma dégg naa leen ñoom ñëpp ñoom bu si ñoom ñëpp sama gars yi. walaay dinaa seen taxawaay baax ci combat bi. lambaloog yëpp dañ ne Fils de Balla moom moom cinquante bëre bi nga moom cinquante xeex yéen ñaar da ngeen di séddoo cinquante cinquante wala damay jël cent yëpp. lamb bi léegi lu fa am yow bi déggoo li ma wax maa mun maa ko doole lépp lu foog maa koy def. bu ngeen xaj bëri ban lépp gën a lépp lu mu indi bëgg naa. ñeme nga am. bis day ma seen si ñoom ak xale yëpp nekk sa ginnaaw loolu doon pression ci yow. géej waay yëpp benn suñu dëgg la ñëpp dañuy ñëw waaw maa leen sant bu baax gis naa conseil gis naa yan bi lépp bu baax parce que ma seen fay chaque jour maa ngi moom lay kontaan ak lay kontaan ñoom ñëpp waaw bu baax waaw. mu doon jërëjëf fils de Balla ñu ngi lay nuyu bu baax di général bi muy mujj si làmb fii la mujjee wu géej waaye digganteem ak sa grand frère Mbaye Dine est ce que combat bi yi. du benn revanche man sama bopp laay bëree damaa ñëw pour bëree daan damaa ñëw bëri pour yi dañ xam ne yaakaar si man dafa bëri kon taxawaar waruma ko xaw ma léegi lu may xaar ci moom wala may xaar ma xel ak bi prix ma dox ci bëri laa wax at bi génn suñu bëree ma dox ci ñoom ci kawam. waaw waaw ah, sama dernière question mooy que général nee na yéen ñaar ku dàq bëri ku dàq xeex ku ëpp doole ku ëpp mbooloo ci combat bi yàlla na ko yàlla amiin amiin amiin kon maa am ndam ah bu dee doole ëpp moom bu dee bu dee bu dee galaaj ëpp moom bu dee firi géew ëpp moom. déggoo lu ma wax ah bu bëggee ñu bëree 45 minutes 45 minutes maa ngi moom. combat bi déglu ma la bëgguma gis dara te ñaaru ma ko soxla ma ko ma may soxla ma ko un franc lu ma may si làmb bi barke si làmb déglu ma estat laa koy dox estat bu ñu duggee ci biir géew bi ko doon wax yaa mun fii sa balla bu yàlla ko doon nax waaw promoteur bi ñu koy sant bu baax Assane franchement ñu koy sant bu baax a baax combat bi yàgg na daanaka am na trois ans waaw ñu koy sant bu baax a baax a baax waaw ñu koy ñaanal li mu bëgg si combat bi yëpp am ko ci franchement sonn na trop bu dee bu dee bu dee dugg xam dugg na ko waaw heure bi moom ñu ngi ñaan yàlla dara ba ñu yàqal combat bi ba ñu def li ñu bëgg a def incha allah. lépp mën naa ko ndax bëri dóor lañ taw mën naa mën na jënd bëri waaw soo su ko defee dafay kontaan naa si yow ndax nit ñi ñëw la dafa nekk ndax gis naa taxawaay gis naa sama gars yi waaw ma koy am ñoom Jogo ma am saree bi ñoom ñoom Mawla sama gars yi ñoom Diakhoum Volcan Goro Fada yan bu diis Pape Ama Dóoru sama gars yi Jogo moom amoo fayam quoi Jogo ak ma yàlla bool bi yëpp di bëgg suñu papa ay si yaay. Abdou Fallé Alane Ndiaye ñoom Soro Khalil Fallou ñoom ñëpp Masala. ñoom ñëpp Paa Waasa. maa ngi koy gërëm bu baax. Diouf Sarr Diouf Sarr. Jibi maa ngi koy gërëm bu baax. ñëpp waa Tëngéej. léegi Moussa maa ngi koy gërëm bu baax. waaw yaa ngi waa Diouf waa Diouf maa leen di sant bu baax a baax waa Diouf gis naa seen taxawaay ci combat bi bu baax. waaw waaw waaw di bëggee kële bu baax a baax. ñoom Mas nañu ñu ngi koy seen maa leen di bëggee bu baax. ko fay ñaanal rek champion la ci ngom gi nga yeewoo ko nañ ko champion ci ngom ko ñaanal yàlla yàlla may ma ndam yàlla ma yàlla may ma ndam ma koy ñaanal bu baax a baax yàlla may ma jàmm Senghor Fallou bu jé ma ngi woo bu baax ci combat bi waa Cheikh Amadou waaw Omar Sall Faye maa ngi woo ñëpp ñëpp waaw ñëpp bu bëgg ci balla maa ngi woo maa ngi woo ko Senghor lan la jëloon boy ak boy ma ngi ko wax ma ci wax maa ngi bëgg bu baax ay la presse combat bu baax a baax maa ngi jël boy espoir maa ngi la jël adiko awma awma lenn lu ma koy sóoraal awma lenn lu ma koy sóoraal ci biir góor buñ duggee ci biir góor xam ne góor laa muy góor awma lenn lenn lu ma koy sóoraal góoru moo sax laa ko koy boole beneen jiw nga quinze mille bi jëm day wane fulla ak jom ndax ñu ñëw di seetaan si moom gars yi nee na damaa indi coach box bu lay préparé ci box mu mel ni combat bi damaa teel a xam déggoo li ma wax ñëpp sama gars yi la sama gars yi ñoo ko fay mu ñëw ñëpp ñii nii ñu may fanaanoo sama gars yi nii ñu abaa xaari mar gànna jili dum sax ñoom ñëpp par ngoon muuri sama gars yi ñëpp Ismaïla Konga yéen bu diis voilà dama ñoom ñëpp Abou Seba gars yi ñoom ñoo ko fay sant suñu wéy bi àndale ci biir sëriñ tamit sëriñ maa ngay dégg bu baax a baax waaw li may li may tàggoo maa ngi ñaan jàmm incha allah.